ci Malika bi la ñu nekk ci condition d'étude la ñu dugal lycée Malika mu waral ñu am ñaari école fi ñu war a am benn école. ce qui fait que normalement ñi ngi am fukk ak juróom-benn salle fukk ak juróom pratiquement war na romb fanweer ak juróom-benn donc dañuy obligé di tàncaloo élèves yi. di leen boole pour ñu mën a jàng ñoom ñëpp si benn classe. pourtant amoon na benn projet ngir ñu tabax ab lycée travaux yi ñu daal di ko door fukki at a ngi nii ki ko def muy maire Malika. léegi ëpp na dix ans responsabilité mairie bi la nekk loolu moo que mairie tabax école dafa répondre à des critères yoo xam ni dañ ko jox benn direction bu nekk ministère kilifa yi war a a a bu Malika bëgg nañu rencontrer ministre de l'enseignement supérieur. ngir ñu amal ak moom audience ngir rek mu xam seeni jafe-jafe rawatina projet bi nga xamante ne dañ dañ ko lancé woon fukki at a ngi nii muy projet ngir am lycée booba léegi Fouras